yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la ci yàlla bu baax te ci kenn mag secret baa secret baa ngoo sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu kon sëriñ bi nee ne saa borom musal na sama njaboot ci bépp feebaru mbas feebaru mbas nee na xaw ma ñan lay dal waaye doonut samay njaboot saa borom moo leen ci musal loolu nag buntu sant la kana tey sant yàlla mi ko ko defal ndax moom defal ko moom sëñ bi waaye yàlla ko ko defal na ko ahmadu sa njaboot gépp mucc nañ ci feebaru mbas sa njabootuk sëñ bi moom mooy ñi aju ci sëñ bi rek ñëpp la ci jublu moo tax mu ne saa borom musal na sama njaboot ci feebaru mbas waaye tabee na ma ay xéewal waaye ànd ko jubbantil ma boppam teg ma ci yoonu siraatul mustaqim nga xam ne fu ma toll rek man sëñ Tuubaa boo ma laaj ci ana Ahmadu ma sant yàlla rek ngeen di dikk bi aswaba wa bi aswaba yàlla tabee na ma ay xéewalam waaye nag ànd ko jubbantil ba boppam moo dama ne sukkur sama cant lu xoo ñeel la ko moom yàlla min lasasin li ko tàmbalee lasas ilal jinaan ba ke rek sama tàbbi aljina yutiibu dana teeyalee alxayaata dund gi xan ci ay njëriñam wal janaan ak xol bu itam dana ko ca teeyalee nee ne daal na xam ne man sëñ Tuubaa ni may liggéey la yonente ba aljina te duma wàcc noonu la ma sant yàlla waree ma koddaayoo malaanu cant borom bi subhaanahu wa ba ki rek may tabi aljana waaw li ko tàmbalee lasas nda wax naan dëgg dëgg dëgg ci la sant ci la sant gi gën a ko waaye géej gi sax Sëñ Tuubaa mu ngi doon sant borom ci xasit yi mu doon taalif ci géej gi mi ngi doon sant yàlla waaye lasas moom ba ci gànnaar yi mi ngi doon sant yàlla ci yoon jëlox mi ngi doon sant yàlla waaye lasas moom cant dëgg-dëgg li tax ñi daan cant nga xam ne xasit yi cant rek ci la jëm ak wéetal yàlla mooy 1330 at mi mu def njaarim at mi mu def njaarim mu béy ko ci yéen dem njaarim mu ne nag samay cant ñeel na ko moom yàlla dong lu ko tàmbalee 1330 gii ma ñëw njaarim gii ñu foog ne bu ñu ma fi indee kat comme marché la te tubaab yaa ngi ko jamono jooje ñu ne kon mën na koo soppi culture bii ñu xamee ko te muy jaamu borom xëy na bu duggee ci marché dana soppeeku wala bu duggee ci dëkk boo xam ne ma jaay ak rek moo fi nekk dana soppeeku xam nga ñaare léeg-léeg day faral di am lu bari bari am na ci nit ñoo xam ne buñ demee ci marché rek soppeeku kenn mënu ci dara. lu ñuy baax baax lu ñuy yiw yiw keroog bañ duggee ci commerce rek lañ soppee ndax commerce moom defe naa ne daanaka man ngeen ne xeeti njaay ni yëpp yëpp yëpp yëpp moo ci gën a mën a soppi nit moom commerçant waaw xeeti njaay moo ci gën a mën a soppi parce que moom dafa doon liggéey boo xam ne daanaka boo ci nekkee da ngay fàtte la war lépp ba ci jiit nag mooy fàtte yàlla parce que jiitu mooy fàtte yàlla commerçant yi moom defe ne loolu gis nga boo demee waxtu julli dem duñ ko faale sax wuute nag ñi nga xam ne nag ñoo wër Euh, makkatul mukarama fu ne boo fa demoon moom bu àjjuma jotoon seen commerçant yi seen koy bàyyee kenn du ko sàcc te te duñ tëj sax seen place yi noonu la ñuy dem ji waaye xëy na fii nag moom boo fa defewoon ngëm yàlla kenn yeggul foofu boo ko defoon sax ñu sàcc ko waaye nag ngëm yàlla kenn dafa yeggul foofu julli jaral lañu sàcc say xaalis moo tax saa borom bi muy wax xool na ñëpp waaye nag xam na ne yi ñoo gën a mën a fàtte yàlla parce que ñoom bu waxtu julli joree sax dañ du nanga dem julli ji moo tax sama borom ne yaa ayyuhaa llaziina aamanuu izaa nuudiya lis-salaati min yawmil fasaam ila sikrillah bay bayha yéen ñi gëm bu ñu noddee jëm fan julli juma na ngeen bàyyi njaay ma kon moom xam na ne commerçant yi commerçant yi la dal seen kaw jaaykat yi a ah, ñoom la dal seen kaw parce que xam na ne ñoom fàtte yàlla ñoo koy gën di def waaw ñu koy gën di def man na bàyyi xel bokk yi man na bàyyi xel ndeysaan mu ne sukuri samay cant loxoo ñeel na ko min lasaseen li ko tàmbalee lasas ilal jinaan ba ke rek sama taabi aljana yu toyibu dana teyelee alxayaata dund gépp a ak nafxan ci ay njëriñam ko nakkiral dundam gépp ay njëriñ la wala janaan ak xolam waaw xolam jamono ji nekk day key waaye dundam lépp dund ak sëñ Tuubaa lépp njëriñ la amul fan bu dund ci ko suuf ta doonul ak njëriñ lépp njëriñu njëriñ la borom bi njëriñ ko radiya gërëm gërëm na anniyee ci man xam nga boobu léegi da ngay dégg man la yàlla gërëm na ma gërëm naa yàlla waaye léegi nag ndax yonent bi gërëm na ko moom it gërëm na yonent bi ci lay ñëw mu ne radiya gërëm na anniya ci man annabiya kañu soloo ko al ajwadu ka gën a tabe falay sa yen xoo te du te du mukk li jinaa bi jëm ci samay wàll al awadu aji dëng ku dëng bayana biralal na lii ñeel ma mbiru lu xol tabii na man mbiru lu koo xam ne laa yax faa nabuhulu ali ci moom say un dara mooy kan mu ne man mooy yàlla mi nga xam ne xabaa may na ma man sëñ Tuubaa ax faa la gën a nëbb la gën a nëbb loo may ma di ko gis mu ne. gën a nëbb ci ay secret nga ca waaw asamaan ak ca li ci nekk ci ay njëriñ yépp tabarka la lépp saa borom daal moom da koo defal lu ñuy wax itlaax yaa maalikal mulki li wasanta doona jor bi mulkul mulku dox la yàlla moo tax ma ne bàyyi na na lii ñeel ma tab yii na man biralu koo xam ne laa yefaa nëbbuwut man mooy ka nga xam ne xabaa may na ma bil axfa la gën a nëbb waaw ah, ka ma may daal la gën a nëbb ma di ko gis te mu nëbb ko ñëpp te kenn mënu koo gis man rek moom mooy ma di ko gis nee na kooku moo may biirlal ci samay xol biirlu koo xam ne dara umput ko su ko defee sama xol jàkk dafa benn dafa jàkkaarloog lépp moom yàlla ni mu jàkkaarloog lépp loolu mooy max na bi yarudu dana delloo si lii jëmee ci man alalimu yàlla muy aji xam ji wal xabiiru tey aji dañ kumpa ji loo xam ne taaba dana teey lii ñeel ma waxaadate mat na lii jëmee ci man woo wammat na ko jëmee ci man alkabiiru yàlla muy aji màgg ji yàlla mi tudd alimu ak xabiiru ak kabir gis nga madal xabiiru liwal kabiiru maa laa yëbooru lépp ay may la nga yooyu ba tey moom la jëfandikoo at yàlla muy aji xam ji teg xam-xam yëpp yàlla muy aji dañ kumpa ji moom lépp la xam mu bàyyi ko ci xubru ku teg xam-xam nee na delloo si ma loo xam ne teey na loo xam ne dafa teey ci man waaye bu noppi mu wommatal ko jox ma ko moom muy aji màgg yàlla mi tudd alimu kabir daal moo ma delloo si loo xam ne dafa dafa tey ci man waaye moom mi tudd kabir tey aji màgg ci moo ma koo matal waaw kon tur yi benn bi nekk dafa am lu muy liggéey moo tax na yarudu dana delloo si lii jëmee ci man al alimu yàlla muy aji xam ji wal xabiru tey aji dañ ko mbëji maa taaba loolu dana tey lii ñal ma waxaada tey wamat na lii jëmee ci man sax wamat na ko jëmee ci man alkabir yàlla muy aji màgg ji elmiya sama xam-xam elmun xam-xam la boo xam ne naafixoon aji jëriñe la mubaaraku bu ñu barkeel la mi neen di man mu bàyyi ko ci buur ba nga xam ne laa yu saaru ko deesu ko bokkaale moom mukk fil mul ko ci biir nguuram ga ci biir nguuram ga nee na samay xam-xam bokku na xam-xama coma coma de xam-xam la buy jëriñi kon na nga ci digg am na xam-xam yoo xam ne baaxul ndax wax na ko ci masaaliku am na yoo xam ne day waral nit ki fàtte boromam day waral nit ki ak coxor ak rëy yëpp yooyu ay gàkk la ci wàllu xam-xam te loolu booy xool jamono ji bëri na ci wala yaasu billah jamono ji moom bëri borom xam-xam yoo xam ne loolu lañ yore li Sëñ Tuubaa wax waaw fu ñu toll ñu ngi wax rek di wax rek te fàtte seen bopp nag loolu kemal la mu ne samay xam-xam mooy xam-xam buy jëriñe bu ñu barkel Sëñ Tuubaa nee na awma xam-xam bu amoon jëriñ waj'al fu'aadiya qasiinatil ulab waaye anaafiat innaka al muxtil kon moom mbir mu ne day wane ne am na njëriñ waaye ni amee njëriñ noonu la amee ay ba ci nit ku baax sax daa am lor nit lu muy baax baax am na ay lor boo demee ci Matlabul Fawzayni def naa nang ci jàng ci bari yu bëri bëri muy ñaan yàlla nag ñu musal ci xayu ku baax ki ak xayu ku bon kon xam na ne ku baax sax day am ay umi lore mu ne sama xam-xam mooy xam-xam buy aji jëriñe tey aji barkel waaye nag xam-xam bi bàyyi ko ci yéen ñi kenn jàngaloon ma ko muy bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne kenn du ko bokkaale ak moom ci biir nguuram ga kon daal yàlla moom dugal ci xam waaye du benn mi def moo ko jàngal def naa ne kon loolu buñ doon xool cant yàlla def naa ne foofu la yem dëgg-dëgg bokk yi kon day wane ne moom xam-xamam saa borom moo ko sol saa borom moo ko ko jox waaye du benn mbindeef boo xam ne mën naa wax ne moo jàngal sëñ kon mu ko axtaaniya jox na ma al axsama la gën a màgg kan moo la ko jox mu ne xayyun yàlla muy aji dund ji nga xam ne laa yemut du faatu walay sa yan ko te jublu jihaat yi samay wàll zatwat mu miit muy songeek aji faati yàlla jox na ma li gën a màgg mooy ismu lay axsam saa su ko waxee rek la gën a màgg mooy ismu lay axsam moom mi nga xam ne mooy xayyun mooy kii dund te dund gi amut fu mu tàmbale waaye du am fu muy du fu muy yem waaye ci biir dund gi ay nax na lu demee ni tawat ak ya koy gàllankoor yi gàllankoor nit ki ci àdduna loolu du ko dal ci biir dundam kon mooy dund dund goo xam ne du faatu te nee ne son geeg aji faati ji te ku ko yebal mu song la kat kan la xasra ila malakul mawti alasi wukkila bikum suma ila rabbikum turjoona mooy malaaka moom nga xam ne kenn ku ne waaw waxtu waxtu ba ma war a faatu daal bis bu jotee rek tabaarikàlla moom def na la muy def moom nee na kooku moom du jublu sama wàlla ma ko kooku yi nga xam ne moom yàllaa koo yebal kon am na ci nit ñi am na ci nit ñoo xam ne bëri nga xam ne wa naasi wa naasi wa naasiaati xarqan am na ci ñoo xam ne moom yéeféet ñi yàlla na ci yàlla musal buy jël seen roogi da koy buddi su ko defee am na ñoo xam ne sax balaa ñuy génn doon da nga dégg ñu yuuxu yàlla na ci musal waaye am na ñoo xam ne bu ñuy génn doon doo dégg dara am na ci ñoo xam ne même sax malakul mawti fi ne xasra ila du jël seen ruu kan moo koy jël borom bi subhanahu wa taala moo koy roccil bopp ndànk am na ñoo am na ñoo xam ne am kon Sëñ Tuubaa nee ne malakul mawti du ma jublu di jël ci sama ruu waaw kon kan may jël ruwam gi te ruwam moom ku xam na ne dem na waaw nekkatul fi ci saayir waaye mi ngi fépp moom Sëñ Tuubaa waaw kon nag yàlla borom subhanahu wa taala mooy ki rocc ruwam moo tax ne ataaniyal ansama xayun laa yemut walay sa yoon xooji ati salwan mumin te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi gën ci mbindeef yi malakul mawt moo jël ruuxam ci ruuxam waaw sëñ Tuubaa nee na ki jël ci sama ruux du malakul mawti salwal mumit du na ma al ansama la gën a màgg xayun yàlla muy aji dund ji nga xam ne lay moddu faatu tawalay sa yoon xoo du jublu jiyaati samay wàlla satwal mumit songeeg aji faati ji layanal nooyalal na lii ñeen ma alqahaaru yàlla muy notaakoon rabbul alamin tey borom bindeef yi moo ma noy lal xulóoba xalqihi xoli mbindeefam yi wa inni man la amin déet may wóolu nag pexem yàlla ak njayeelu yàlla ak yunu mel lépp bi ma def léeg-léeg lépp taxul ma wóolu pexem yàlla ak njayeelam yàlla turum wii di ci xaxaaru la ma noyolee yi waaw mbindeefam yëpp waxoon nag jullit ñi rek ma tax xol boo dem fu ne fekk sëñ Tuubaa yéeféer baag jullit baag ñoom ñëpp ci am waaw boo dem rek fekk fi aw fekki ni kay ñoo ci dul bokkee na nga koy fekkee ca xolub jullit ba moo dul bokkee ca na koy fekkee ca xolub ku jullit waaye xol bu ne saa borom tàggatal ko ëxma tàggatal na ko ëxmatu afu ne sëñ tubaa dañ na fépp ñëpp ko xam ñëpp xam sëñ tubaa lan moo ko ko may lan moo ko may jaamu boromam képp moo ko may leneen mayut ko ko nag jaamu yàlla rek waaw nen yàlla moo ma tàggatal moo ma nooylal xolu mbindeef yi te nee nag lu ma ko yàlla de defal defal fii taxul ngeen jàpp ne dama am sañ-sañ lu ma neex def mbindeef lu ma neex wax mbindeef déedéet ndax lool moom ku ci nekk rek saa borom nanguwaat lim la defal moo tax mu ne du ma wóolu mukk pexam yàlla yonent yi sax wóoluñ ko afa aminoo makarallaahi falaa yaamanu makarallaahi ilal xawmal xaasiroon saa borom ne kenn du wóolu yàlla lu may nit ñu ñu perte kon Sëñ Tuubaa lii yàlla ko ko yàlla mën na ko defal doomu aadama sax di ko ci pexal waaw am na ñoo xam ne pexam yàlla rey na na lii nooyalal na ma alqahaaru layana nooyalal na lii ñeen ma alqahaaru yàlla muy notaakoon bi mooy ki noot lépp rabbul alamin tey borom mbindee fi xulóoba xalqi xooli mbindee fam yow wa inni man laa amin déet may woolu pexem yàlla waaw du ma wóolu pexem ak njeelam lépp du ma ko wóolu lu ko yàlla defal defal daal tabaraka lépp dama koy delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala allah na nooyalal na lii ñeen ma xulóoba man xooli ña xam ne lam yuslimoo jotuñuy jébbalu ci lislaam baaxin yàlla muy sax ji yuhibu nii ma bëggee bii ca moom yàlla moomee man gaa ña nga xam ne aslu moom ñoom jot nañuy tuub dugg ci lislaam di wéyee santaan yi nee na xoolum ñi nga xam ne jébbaluñ seen bopp yàlla ñoom ñëpp yàlla nooyalal ma leen nooyalal na ma leen te nee na ñu dugg ci lislaam di wéyee santaan yi nekk ay muslim ñoom ñëpp danañ ma sopp ngeen jëm yàlla waaw ci yàlla lañ may soppee moo tax ma ne alaa na lii quluuba man lam yuslimoo baaqin bu yuhibuni man aslamoo alaa na nooyalal na lii ñeel ma quluuba man xooli gaa ñi nga xam ne lam yuslimoo wuyu wuñu santaani seen borom subhanahu wa taala yàlla moomoo leen nooyalal ba mënuñ maa lor waaye buñ ma gisee tam dañ may bëgg baaxin yàlla muy aji sax ji moo ko def nag mooy faal bi yuhibu nii dana ma bëggee bii ci yàlla moom nga xam ne mooy kifee sax man gaa ñi nga xam ne aslu moo ñoom tuub nañ ba dugg ci islam ba tudd ay muslim di wéy santaane seen borom subhanahu wa taala ñoom dañ may bëgg ngir lan jëmbi suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi dellu waxaat ne wala niyal baaxil waliyu wa latif bima bihi akunu mardiyan atuuf wala niya féetee na ak man soppante na ak man méng na ma <laughs> baat bu neex ba wala niya méng na ma albaqi yàlla mi fee sax ba faw tudd fa bay ko alwaliyu tey aji méngoo mbiri ki ko gëm wala tiif tey aji ñeewantu ji na ma mooy xaritoona ak man di ma jox bi loo xam ne akoonu dana nekke bi ca loolee mu di ma méng mardiyan doon ku ñu gërëm attuuf doon ku ñu ñeewantu yàlla mi moom ñetti tur yi yépp benn bu nekk am lu muy dox lu muy liggéey albaaqi mooy ki fee sax ba footu du fa bee ko alwaliyu mooy koo xam ne ku ko gëm rek mooy moo la warlu lépp moo méngoog sa lépp ku baax rek moo mooy ki la dina jàppale loo bëgg waaye mooy lëttiif mooy ki lay ñeewantul boppam kooku moom daa yaatu sax moom yi ñeewantoo moom dafa dafa daj ñëpp jaamam ñëpp waaw wallahu raufun bil abad wa anna allaha raufun rahim léeg-léeg sa ab yifir def dara mu bëgg wàcc mbugal rek waaye ñeewantoo ma tax du wàcc ci moom wala la fadula aleykum wa rahmatu yi ngay jàng ci alquran yëpp ñeewantoo ko yàlla tax waaw bu taxutoon a yërmandeem ak ngëneelam ah kon noonu mu jëlee leen fi yéen ñëpp ci kaw suuf wala niyam méng na ma albaaqi yàlla mi fee sax ba faw alwaliyu tey aji méngoo mbiri jullit bi wala tiyu tey aji ñeewantu ji bi maa loo xam ne akoonu danaa nekkee bii ca loolee yan doon ku nu gërëm atox doon ku ñu ñeewantu li ma yàlla méng daal waxuma leen tur wa nag waaye nangeen xam ne ngërëmal yàlla ci laa koy jële waaye ñeewantu ko yàlla ci laa koy jëlee ah ndax ngërëmal yàlla kon ci tur wii di alwaliyu la ko yàlla méng di ko jox mooy tax mu gërëm borom subhanahu wa taala am ngërëmam waaye turam wii di latif na ko yàlla ñeewantoo mooy tax mu am ak ñiwantu borom subhanahu wa taala benn bu ci nekk ak la muy liggéey wasala eggale na li jëmee ci man albaqi yàlla mi fee sax ba faw bilaa kayfiya ci lur kayfiya lan la yeggale ci yow lan la la jox mu ne asmaana ak njëg maa mooy li nga xam ne biixtu jaay naa ko ko minal kayfiya mu bàyyi ko ci kayfiya kayfiya boo ko déggee mooy li mu araamal ci boppam rek muy toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett léeg-léeg mu li mu laaj fanweer ak ñett mooy kayfiya ci xeeti neex-neex yi marchandise rek mooy marchandise bi nga xam ne marchandise mu neex la rek mu daal di ko jox boromam jaay ko ko. te doon misaal nga ne mooy yow mi am sa marchandise ba noppi bëgg ci xaalis foo jëm ca biti bi ngay dem jaay ko prix en bu bëri prix en gros borom biti bi jënd ko su ko defee lan la lay def jox la njëkk mu ne nag yàlla marchandise moom ma ko doon jaay jox naa ko marchandise te marchandise ma moom du ci xool lenn na ma lii baaxut moom dafa dafa ramassé lépp jënd ko prix engrais bi waaye na daal di ma jox njëb képp képp képp njëg gi ci fan la beekoo muy moom moo ko jaay ci kay ca la bokk yàlla jox na ma njëg moom mu fee sax faw te delloowul ma marchandise ga njëg gi noo def ba am ko mu ne marchandise moo ko jaay mu bàyyi koo ci marchandise ma njëg gi mi nga bàyyi koo ci marchandise wasala eggali na lii jëmee ci man albaqi yàlla mi fee sax ba faw biraa kay fiyee ci durul kay fiyee mooy marchandise ma joxoon ma ko de lan la yëgale ci mu ne asmaana njëg gi maa mooy la nga xam ne bixtu jaay naa ko ko lu tax mu jox ma njëg maa mooy li nga xam ne bixtu jaay naa ko binal kayfi mu bàyyi ko ci kayfiya mooy marchandise moom nga xam ne moom la jaay borom bi subhanahu wa taala moo tudd kayfiya ay melo yu bari bari bari la yoo xam ne ma ne su ko lim ci ay neex ndax yàgg naa ko nettali kayfiya mooy ay melo yu bari bari yoo xam ne ci xëyte marchandise la waaye lépp sëriñ bi daal di xaraamal ci jëmmi boppam jaa lépp ngir lan saa borom subhaanahu wa taala ko boppam kon loolu lépp lekk yu neex la yoo xam ne mënoon na ko lekk waaye déedéet dafa xam ne bu ko lekkee mi ngi yëg lu dul boromam subhaanahu wa taala moo lépp ci boppam kon nag fu ñu toll rek war nañoo sant sëñ Tuubaa laxoo ñeel na ko moom yàlla baqaa iya samak sax wa inni man askuru danaa ko sant ba faw bi bi xayri ko faraarin ci lurut ak sul jëf mooy ñi defal la ba noppi te doo sant mooy ci ak witti rek ndax nit ki même sax tey bu la yàlla defalee xéewal loo doon doon julli te doo ci sant mel ne yàgg yëfit ñi dem da ngaa suul njëkk ma tax alxuraan yuhjibu suraaha li yaqisa bihimul kufaaro baykat sax la muy def noonu mooy suul jëf ndax da ngaa dem suul sa gerte gi nangam boo ko bayut day yàqu nag waaw moo tax ne loxoo baqaa iya wa inni askuru bi xayri kufraanin wa inni askuru loolu ñel na ko moom dogg dong baqaa iya samay sax waaw sax gi mu fay sax daal moom rek la concerné moom rek la ñeel wa asku wa inni man askuru danaa ko sant ba faw benn bu ci nekk fi mu daaroon xëy na kufraadin ci lur sul jëf muy ci lur ak weddi ñàkk ko sant wa inni man ba tey askuru danaa ko tudd ba benn bu ci nekk fi mu daaroon sant yàlla du si mos a jokk ba aljana tudd yàlla du si mos a jokk ba sa ba aljana mu ne ba léegi suñ tuwaa ngi tudd borom subhanahu wa taala mu ne bismillahi soxtama sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani mbuur bay xëy walaa kon bépp mbindeef ci àdduna arrahim mbuur bay ajaram koo soob ci mu ne maa ngi tàmbalee ci turu yàlla yàlla mi ngi xëy walaa kon bépp mbindeef ci àdduna tey ajaram koo soob ci mu ne allahuma yow suñu borom maa ngi lay ñaan ndax kat yaa man yow yaay ki nga xam ne waxaba yaa mayee lii ñaal ma bi xadari azamati saatillahi ci sa kattunug màggaayug jëmm ji yow yàlla tabaaraka yow mi nga xam ne barkeel nga wa taala tey aji kawe ji weeru Ramadan ak rabion awal ci nga ma may lii yëpp nga ma may mooy lam jaayantoon ak boromam lépp ak ba ko yàlla di jox njëgg lépp ci biir weeru koor ak biir weeru gàmm ci la ko defee la ko defalee. moo tax mu ne yow yàlla yow yaay ki nga xam ne yaa ma may dangaa xool sa jëmm ji ni mu toll ci màggaay nga xoolee noonu di ma sotti sa may rek nga xool noonu di ma sotti sa may rek weeru daal bis bu ñëwee yow yàlla maanaam na ngay jëflante ak man tabarkalla may moom day ñëw rek. weeru koor bu ñëwee may day ñëw rek yaa man yow yaay ki nga xam ne waxaba may nga li ñeel ma bi xadarat bi xadari azamati ci kattanuk màggaayuk saatillahi sa jëmu jëw yàlla tabaraka yow mi nga xam ne barkal nga wa taala tey aj koy genre ramadana weeru ramadana wa awal ak rabiul awal dem na sax ba yàlla may ko weeru gàmm ndax ñaari weer yi ñooy ñaari weeram may ko weeru gàmm may ko weeru koor kawe ci nga ma maye weeru Ramadan ak rabiul awal te weeru gàmm kon yàlla may na ko weeru koor may ko weeru gàmm moom lépp dana yàlla may na ko booy xool moom lu am njëriñ lépp Sëñ Tuubaa nee na ah yàlla may na ko xam nga bu doon malaka ni rek mu jeex yàlla moom la doon wër na waaye benn bu ci nekk mu koy mu koy tudd par détail bu ko waxoon ci engrais bi rek tabarkalla waaye nag gars yi dañoo mën a weddi mu ne sahida lillahu bi anni abdu lahu qadimun li na wa yabdu sahida seedeel na lii ñel ma allahu yàlla bi an nii na man xabdun ab jaam la waaye nag ab jaam laa loxoo ñeel ko waaye nag xadiimun di sax dàkk di liggéeyal li na bi ñeel ko ñu ko tama yonent bi ta ne ne waaye doo dana feeñ ba leer ñëpp fi yox la mu daar yoon la leeru ñëppam bi kaw nii xadiimal mustafa tatabayenu ifaali wa ibqaayi wa fawsi bi ma seedeel na man ab jaam laa bu mu nangu ak jaamam waaye nag kuy sax dàkk laa du ma du ma te du ma tekki ko mukk fu ma toll damay takkaay du liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam te nee na loolu waxuma la rek yàlla seede ko yonent bi seede ko waaye dana leer ñëpp ma de leer na ma fut ndax koo xam ne foo ko tuddee rek al abdul xadim rek tabarakal lay ndamoo kooku tabarakal la moo tax mu ne sayida seedal na lii ñeel ma allahu yàlla bi an nii ne man suñ tubaa abdun ak jaam laa loxo ñeel ko waaye xadimoon doon koo xam ne day sax dakk di liggéey li na bi ñeel yonent bi nga xam ne mooy ku ñu soloope waaye wayab doo waaw dana feeñ ba leer ñëpp waaw kooku moom amul commentaire dana feeñ ba leer ñëpp def naa leer na ñëpp ku kañaanu rek xam ngeen ne doon gi mu doon al abdul xadim te loolu lay puukare yoo defe naa ne ku kañaanu ku ne ku ne ku ne loolu moom leer na la ah, loolu leer na la mu ne hëddiyat yi samay may nag xaaban ump nañu anil aqtaabi walis xutb yi cheikh abdul xaadir jiilaan lu muy bari bari may ci yàlla cheikh ahmadou tiyaan sirif lu muy bëri bëri may ci yàlla abou hasan asaasil lu ñuy bëri bëri may ci yàlla ak ñeneen ñeneen ñeneen boo limee ponkal rek bàyyil nag ponkal yi moom boo leen limee rek bàyyil nee na xamuñ sax xamuñ sax samay samay may ump na leen lu ump mooy loo xamul lu mel ni tey xam nga tey fi ne julli gi bu ñëwee boo gisee yenn yiri yi ñuy sol boo ko doon misaal mu gën laa jege max naa bi am na koo xam ne day xool yiri bu xew rek mu fas keneen jënd ko wala portable bu bu seer boo xam ne xew na génn na ren rek mu fas keneen jënd ko kon da koo xam waaye ba génnagul moom kenn xamagul ko waaye may sëñ tubaay moom dañoo génnagul kenn xamul ko moo tax kenn kenn kenn kenn ñëwut ci kumaan yàlla da dafa génnagul xam nga yàlla moom lépp léegi may nag moom sëñ rek ko am ñoom xamuñ ko dañ koo xamul ba ci xam nga bu ko xamoon nag buñ ko xamoon mën nañ cee commande man nañ cee commande fexe am ci ah comme ñaw gi génn ren kat fas yéene naa ren moom bii mooy sama ñaw waaye nag dafa génn ko kenn xamut ko waaw te mag yi kenn dootu ko am waaw hëddiyat yi samay hëddiya xaabaat ump na anil aqtaab yi wala xutbu yi waaw boo ne mooy benn aqtaab nag mooy ñëpp bu ci kenn génn waxtaan xaatu te dana wommatu liy jëm ci man almunaa li nga xam ne mooy samay mbébét fii xitaab yi ci si biir discours yu am sens yi muy sama xasida may taalib ci njaarim fii xitaab yi ci sama biir wax ji neen wax ji wax wax ji ma ji ma ko wax rek ne samay hëddi yi ump na walis axtaab yi muy xutb yi xamuñ ko kenn xamul ko nee na wax ji ma koy wax rek ngir jublu coo sant yàlla ñee ne samay mbébét ci lay womatoo di ñëw waaw samay mbébét ci lay womatoo daal di ñëw ma tamit waxtaan xaar dana womatu luy jëm ci man almunaa samay mbébét fii xitaab yi ci sama biir wax ji rabbi sama borom rabbul arde mooy borom juróom-ñaari suuf wa samaa i di borom juróom-ñaari asmaan wala xarsi ak xaras wal farsi waaye mooy kii lal suuf waaye nag warbul maa i mooy borom ndox ba tey mooy borom ndox mi. yàlla moomu di sama borom mooy borom mooy ki sàkk juróom-ñaari suuf sàkk juróom-ñaari asamaan sàkk aras muy gàngonaay nga nga xam ne yàlla su doon am barab bu may toog danaan ci la toog waaye yàlla moom ngi fépp. alfarsi mooy suuf bi mu nekkee suuf ba noppi maanaam ni nga xamee ne noonu lañ ko lalee xam nga asamaan ndox mi ci kaw asamaan lay beekoo waaye suuf si itam nim laloo moo tudd alfarsi niñ ko lalee mu jekk xam nga moo naa nekk suuf rek waaye kenn ko lal waaye dañ ko lal mu jekk nga xam ne amul sàppi loolu la alquran wax ci suuratu sariyaat yi wala arda faras naaxa fa nixmal maahidoona ñun yàlla suuf si ñoo ko tàllal est ce que ñun ñu ko tàllal ñun ñu ko def noonu ba ku ba mel ne lala gune bu la neexee tëdd bu la neexee ndox te dul ma sàppi kon boo ne rabbul maa i day dellu ci asamaau waaye boo ne rabbul ardi day dellu ci afarsi waaw kon asamaan ci lay ndox la bay ko waaye suuf bi mu nekkee suuf ba noppi yàlla ko talal ba mu neex jaar jël ay doj samp ci waaw alaxasawaatu bi xeyran ba den tarawoon xaa wa alxaa fil ardi rawaasi an tamida bikum yàlla neen su fekkoon suuf dafa def ma ko nii ma ko def rek konoon bu ngeen bu ngeen doxee ci kawam da ngeen di surox xaaw waaye gis nga ku ko yàlla moo tax mu ne sama borom mooy borom suufi juróom-ñaar ak asamaani juróom-ñaar di borom aras waaye doon ku tàllal suuf ba mu tàll ñaar wal farsi waaye warabul maa mooy borom ndox ba tey lépp te tabaaraka la te lépp sàkk ci ndox la béy ko kullu shay'in hayyin afalaa yu'minuun waaw foofu tax ma wa ja'alnaa minal maa'i kullu lépp luy dund rek saa borom ne ne mënta dund saa ndox ndox rek ci lay dund rada delloo na almakaariha lépp luy xeeti naqar li xëyri saati mu ci fudul sama jëmm kan baaxin yàlla mi fee sax ba faw mu fa diloon tey aji gënal ku ko neex loxoo ñeen na ko lasaati sama yëg-yëg muy sama bànneex yàlla danoose na dàq na lépp lu may naqari mu jëm ci fu dul sama jëmm kan moo ko def yàlla mi tudd albaaxi mu fee sax ba faw te du fi ko waaye mooy mu fa diloon mooy aji gënal ku ko neex yàlla moom li ma yëg moom rek la kon gis nga bànneex bu muy wax du lekk kon yëg-yëg bi muy am ci borom subhanahu wa taala muy bànneexam loolu tabaaraka la mooy bànneexam xatta di binduk sama loxo si nii naa ay xat waxaadate wamata na lii jëmee ci man maataaba loolu teey na ci man wal funoona ak fànn yi ngeen di dégg yépp ci fenn xeeti xam-xam ak i yàlla diir bi ma nekk ci géej gi fukki at yi yépp damay bind rek jëmee ci moom di ñaan yàlla di tawaadoon yàlla di toroxul yàlla di jégalul yàlla lépp lu ñuy def diggante jaam lu war diggante jaam bi ak yàlla ma di ko def ci bis géej gi fukki at yu manqué dara ndax moom jàpp na ne moom fukki at la am ci géej gi ñi ñooy wax sax juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer waaye suñ toom juróom fukki at yu mat sàkk la ne la am ci géej gi kon malaktuhu qatta yadi siniina waxaadali maatabal funuuna moom loo naa yàlla moom loo mooy jox naa yàlla sama temps yépp sama mbindug loxo lu ma bind rek ci yàlla jëm loolu ñaata at la mu ne siniina ay at waaye lan la la ci yàlla defal waqaada womatal na lii jëmee ci man maataaba loo xam ne teey na loo xam ne teey na sama xol dëgg-dëgg wal funuuna womatal na ma fànn yépp loo mën di dégg ci xeeti fànn yi rek yu am yu am yiw yu am njëriñ rek saa borom jox na ma ko diyaafatul la si nafa xadaaya li xayri nax wi xaladat xadaaya diyaafatul la si ganale ki nga xam ne te muy yàlla nafa dàq na xadaaya samay noon li xayri nax wi jëm ci fudu sama wàll waaye xaladat moom kooku def lool xaladat béelal na saxal na xadaaya ay hëddiyaam ci man muy ay mayam adaaya boobu xëddiye lay tekki mu ne ganale gi nga xam ne moom la ma yàlla di ganale waaw jël xëddiye di ma xëpp rek waaye ba noppi daana bu benn noon jege Ahmadu waaw benn noon bu mu jege Ahmadu ba noppi di jël ay xéwalam di ma xëpp nag noonu da leen di dàq ñi sëri waaye di indi ay xëddiye di ma jox kooku ganale moom tabaaraka la ganale ganale goo xam ne doo gis sa benn noon te saa borom ci boppam moo lay ganaleel boppam di la jox ay xéwal googu ganale riis na moo tax ne di fa tull si ganale ki nga xam ne nafa dàq naa daa yaa samay noon li xëyri nax yi jëm fu du sama wàll ganaleem allah daat moo saxal xadaa yaay samay hëddiya yàlla na suñu borom defal dégg ak topp incha